Oui, comme vous venez de le dire tout à l'heure, là, c'est ce que vous dites, c'est tellement pertinent que c'est une situation qui inquiète tout le monde. Euh, ba ci ñi ci gën a ndaw et j'ai été très touché hier quand j'ai vu le jeune arrière gauche des Lions euh, mooy booy yi war a finaalu mm-hmm. ci discussion ci conférence de presse veille de match mu ne euh, dañu war a gagner apaiser les cœurs pour que Sénégal am jàmm donc juste pour vous dire que les gens sont vraiment inquiet de la situation politique et je pense que pour deux personnes qui se disent que Sénégal moo leen ñor muy camp pouvoir bi comme euh, Ousmane Sonko li li ñuy wax euh, raison gardée mais j'ai comme l'impression que ku ci nekk day tirer ci sa côté et loolu nekkul mooy mooy mooy defar situation bi donc euh, comme ni mu ko waxee tout à l'heure moi je pense que Ousmane Sonko bon on n'est pas trop politique mais bon par rapport à notre lecture général de la situation quelqu'un qui se réclamait innocent bon je pense que il a la possibilité de de laver son honneur ah, waaw donc mun naa ne am na possibilité euh, war a mun a dem wuyu wuyu ji pour li ñu ko daan tuumaal mu setal dara dëgg la parce que man su ma nekkoon ci situation parce que Sénégal tamit lépp lu ñu ci mënte wax instrumentalisation justice nit ñi dofuñ nit ñi dofuñ parce que souvent di nga dégg ci débat yi sax ñu ne ngay dégg nit ñi naan bon viol amul lii donc na dem setal setal ah, setal setal deram